asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ah. dañ ne woon du ko farata farata la tudd dëgg la tudd pas pas la tudd dëggu la tudd waaye yabaate yabaate yabaate la tudd xëy na sax jarul kàddu yi di gudd dañuy bañ ñu ne dañoo bette dañuy bañ ñu ne dañoo bette dafa am baat bu may faral di wax ndax def di lu ma ñor dama wax ni aduna bi dañuy jaawale tribunal ak justice ñaari bokkuñu ndax tribunal bis bu nekk nga dem ñu jàpp ko deful dara tëj ko ne ko ay ati at bis bu nekk ñu jël ki nga xam lu yàqu moo ko yàq ni ko demal doxi sa soxla defoo dara mm-hmm. kon nag loolu du justice tribunal la ndax justice ci loxo yàlla la nekk xaaru ci accordu kenn seetu ci intérêt wu kenn xoolu ci arrangement wu kenn justice mën na la fekk ci mbedd bi ngay dox mën na la fekk ci lalu jàmbur nga fay def lu jaaduwul mën na la fekk sa diggu laal ngay nelaw yàlla li ko góor gi ma see jàngale yàlla xamul li war li jot la xam yàlla xamul li war li jot la xam am na nag loo xam ni buñ yaakaaree ne ay ndof lañ ko séqal xamuñu li xew ndax waxuma sama góor gi waaye ñun ñii rek am na lu xam ndax dañ ne daa wax bu dañ ah déet dañ def ndànk daa am na loo xam ne suñu kanam la dëgg la conférence de presse ba woon ca mairie ba ñu mhm. ñëw fa woon waaye yóbbante nga am gannaaw waxtaan nga ak la fa góor gi wax mhm. est que xam nañu ko parce que seen soi-disant kilifa ba muy yóbbante di sarax ne nañ nañu sarax mhm. li mu wax bu mu ko def ndax bu ko defee réew mi tàkk te àtt nañu ko loolu est ce que yëg nañu ko est ce que wax nañu ko est ce que bëgg nañ mu suñu kanam la bari gi moo njaay élection yi passé lay wax élection yi passé lay wax te yow mii sama seede nga ci xaaru élection yi passé lañ yóbbante ci ma Alioune Badara Diop directeur Folac di ko leen jege ñu nit mu ñu pas-pas ñu jàppoon mo nek ci mom waaye Sénégal lañ nek na fiq moy sport national na fiq moy sport national mo ta duñu demee coupe du monde duñ fa liggéey dal ndax ñëpp na fiq daf ma jot téléphone ne ma gëj nañu gisee ma ne ko jamono xat mo ne bëss sangam ba xam di nga ma ne la ñu xool ñu gisee toog mu ne waaw man de dama xaw a jaaxle ma ne ko ci lan noonu mu ne ma bu ñuy mujj jotante téléphone ma ne ko waaw mu ne ma dama coupé ak yow 30 minutes Mansour Faye woo ma ministre Mansour laay wax bëgguma ñuy nekk fi naan Mansour Faye bële la ak bële. lu leer naa ngi laay wax lii may wax nag ku koy wee dina xam li muy def nga xam li muy def mu ne ma def ma woo ne ma yow dafa mel nii sa diggante capitaine ra tax na mu ne ma def ma ko wax ma jaaxle waaye xam nga rek comédie daf ma ko wax ma jaaxle. Mhm. ma jàpp ni xëy na sa téléphone lañ mettre sous écoute ma ne ko loolu du at yi atu yàgg yi la. Mhm. du lu bees ci ñun xam nañ ko. Mhm. mu ne ma ba ma waxee loolu ba pare. daf ma ci tegal ni ma président moo ne woon nañ la yóbbante ci moom. pour nga wax ko ni ko nañ leen sarax ñaar ba ñetti député. billaahi wa kitaabi mu ne ma ndax moom ci ko xam nga ne ñi ñu am comme député wóolu leen loo wóoluwu leen ndax sérieux wuñu parce que moom moo ma ko wax mieux que ça dafa woo Mansour Faye téléphone WhatsApp sama kanam jox ma ko paas ma ko boobu Mansour Faye moo ngi Inde ndax ma Badara Diop moo ma wax ni boobu yaayam dafa feebar ñu évacué ko Inde pour faje ko mu paas ma ko téléphone mooy mu répété ma la même chose kon nag seen coow yooyu dañ ko teg ci suuf dañ ko teg ci suuf am na loo xam ne ñun tëlee wuñu ko am na loo xam ne ci réew mi ñun tëlee ko am na loo xam ne ci réew mi ragal ko mm-hmm. fukki nit mm-hmm. mun naa ci attaque mun naa ci àll continent ñun ñun doom kon nag kii jartalaal mm-hmm. wax ji nag. du sori. Mhm. bañ ko ne dañoo bett rek. Mhm. bañ ko ne dañoo bett rek. Mhm. ndax nag. Euh, wax jooju Serigne Cheikh waxoon. ni réew mi buñ ko sangul sangee ko deret. buñ bëree xam nu mu mel rek nañ tuddaat góor yi. bo len xamone ni ci saware di ngeen moytu di ngeen di def bo len xamone ni ci saware di ngeen moytu di ngeen di def ndax bañ ko tuddee léegi suñu yax sax moy xassat ci jamm lañ ñu yar ci jamm lañ ñu yar ci teggin lañ ñu yar waye yalla xam na ni liñ mën ci lor ko dugg leen ci ñun rek xamuñu sax li xew li ñuy wax nag lu ñuy ñeme la lu ñu lu ñu gëm la ku ko ñeme rek nañ ci ànd de ndax damay wax ñi nit du jël bakken bakken kenn du ko jël dangay am loo gëm sa moroom am lu mu gëm nga jël sa bakken joxe moom mu jël bakkenam joxe ku sa conviction ëpp sa moroom nag sa compétence ëpp sa moroom mooy jël ñaari ñu nag suñu bos bañ ko joxee yàgg na. Mm-hmm. di ay xoote la rek. Mm-hmm. Mm-hmm. ay xoote la rek. kon nag bu demee on s'en fout. on s'en fout. li ñuy wax nag. buñ ko gëmee. baax buñ ko gëmul. baax na. incha allah l'essentiel daal. nañ laal ñu ko gisee. ñun la ñuy def pare nañ ko yàgg na. buñ ci duggee rek pare nañ. buñ ko ñemee pare nañ buñ ko ñemewul pare nañ. kon nag wax jaa ngi noonu. barakallah asalaamaaleykum cht tt musuma gis lii jaaxle woon naa lool ci sama xarit bi nga xamante ni ndoxum siti daf ko sonaloon lool waaye bi ma demee ci pharmacie almaktum ba mu jox ma ci savon yii oh xaw naa fa yéex a dem waaye xoolal ma sama xarit bi léegi yaram bi mu ngi nes nes yi moo tax xibaar bii daal duma ko nëbb képp ku ndoxum siti sonal lool fexeel ba daal di jot ci savon pharmacie almaktum yi nga xam ne baax na ci yaram di defar sa tee waxuma la dara sax waaye yéen ñi nga xam ne seen yaram dafay xasan wala seen deru yaram di xub des sax seen yaram di génnee ay picc savon yi pharmacie almaktum di jaay moo ci gaaw daf koy dindi ba sa yaram di nes nes yi te ci gën a neex nag mu di savon yu am qualité la saa yoo jeexalee mën nga ko amaat da dem ci pharmacie Al Maktoum nekk ci diwaanu Grand Yoff numéro téléphone am di 77 604 07 71 77 604 07 71 savon pharmacie Al Maktoum yi daal disponible na partout au Sénégal ak sax ci diwaanu bitim réew mbokk yi seen jaaxle jeex na ak savon pharmacie Al Maktoum yi ndoxum siti moom jeex na ci suñu yaram jaaraama pharmacie Al Mourchid Export Group nek fi ci Turquie ñu partout en Europe ba Allemagne ba Sénégal Mourchid Export Group dañu def aérien tous les samedis sen dépôt ci Sénégal Nekifiti Golfe Sud livraison à domicile Mourchid Export Group Décharge conteneurs conteneur tous les 15 jours Waouh, tous les 15 jours amène conteneur groupage ak conteneur full Bulletinaire. Djokol et neex bagage partout en Europe Allemagne ba États-Unis d'Amérique bagage bu ngeen am bëgg mu jógee Turquie dem fépp ci Europe bi Allemagne ba États-Unis d'Amérique te du ngeen ci am benn coono jokkoo ak Mourchid Export Group ba ci commerçant yi nekk Sénégal di jël vol aller retour ngir jëndi ay marchandises Mourchid Export Group teggil na leen ko mboolem usines yi ngeen bëgg a jëndee seen i bagage ak bagage bu mën a doon jaare leen ko ci Export Group ñu jëndal les marchandise yi soxla chargé leen ce conteneur destination Sénégal gaaw na wóor na et seen sell na PDG Moussa Gueye Qui plus 90 538 287 81 11 wala ngeen Pabloum, qui Pape plus 90 545 340 22 31 wala ngeen jokkoo qui Ndiouga plus 90 534

32 Mourchid Export Group teggil leen mbooleem coono yi ngeen daan daj di dagg bii dem aller retour jëm Turquie ngir jëndi ay bagage wala ngeen am bagage Turquie bëgg mu dem partout en Europe Allemagne ba États-Unis d'Amérique seen coono jeex na Mourchid Export Group di def fret aérien tous les samedis conteneur tous les 15 jours am na conteneur groupage ak full bu la ci neex fii rek la ci Mourchid Export Group bu ngeen bëgg dégg dëgg daal Mourchid Export Group ñoo fi ne